eh eh borom kër eh borom kër kaay kaay argaay. jaafaay salaamaaleykum. maalekum salaam. yow kar bii nga yor nii kar bi dafa jaay wala. jox ma 300 ma bàyyi ko fi. lan 300. yow kanaa sa bopp bi dee daa am yuur bu toj foofu. waa baax na indil 50 yi. am sa kaalis. eh kii fu jëm eh, eh sama kar bi eh fu mu jëm kami Tuuba jaganam nga gucc mais Pulo doo jóg fi nga toog ngir yàlla xar bi sàcc nañ ko ba pare munoo wax ba mu ñëwaat. booy Café Touba xoolal booy bàyyi ma mu toog su mu kondaane bii laa daj jëndal kar su mu jabar ju ñu sàcc ko bàyyi ma mu toog waaye ba mu jooro. waaw loolu dëgg la lu yam am na ba pare munoo wax ba ñu indiwaat xar bi kay gëmal yàlla. gëm naa yàlla béré béré andi àlla waaye ronga yi nekk suñu yaram bi foo mu génne bu bàyyi ma ma jooy. way xeegam yooyu bi

alba ñoo bokk dëkk waaye dafa mënu fen lu mu kam da koy nettal lépp lu mu kam Dakar danaan pulo waɗi ɗum waɗa ɗum <laughs> e eh, booy kam Touba kaaramu ñoo dem police def déclaration de plainte contre x y ak z ɗum somi woppi ɗum weewat suuf bàyyi da yom barki téere maam yàlla kojal leen e jafalan njaxat nan comme yéen pour la man la pour la waaw sumu pelent bi mu pelent woon x y contre z ak ak ak double v moo tax ma woo waaw mooy boobu dawoon ak sumu carte dem joxoon sumu xaalis waaw waaw dinaa kaar ba dem xedo wax leen nag ñu dem gaaw police dañoo yéex torop booy wuti kayit sax day yàgg ñoo gënoon gaaw jàpp sàcc waaye léegi dañuy yéex jàpp sàcc <laughs> asalaamaaleykum. buloo noo def. waaw booy séeréer maa ngi fi nam naa la si la nekk. nga dem tabaski ji dëkk bi rek nga ñëwaat nga ne doo ñëw liggéey si liggéey bi te liggéey mu ngi lay kaar fii nii. waaye gis puloo dëkk ba dafa neex tabaski ñi pay daje ñii di boree ñii di fubal dafay neex retour bi moo tax ma yegg fa waaw wax nga dëgg de loolu dëgg la waaye bul fàtte ne liggéey jàmbur gaa yi yóbbu suuf gaa yi yóbbu soble ak tamaate ñu ngi fi wax nga dëgg loolu dëgg la naka julli bi baal ma ak baal naa la na ñu yàlla boole baal ñu fekkee ko ay déwén yu bori bori bori baal naa la baal naa la yàlla nañu yàlla boole jéggal ñu fekkee ko déwén boole amin waay boy séeréer suñu xarit bi ah, waa naka waa dëgg ba nag naka juli bi a ah, man mujjeewu ma tabaski ci de sumu kar lañ sax buñu ne ginnaaw suba tabaski yow ma yor ma woon beneen njëgu kar di dëkk ba boo demee indi woo kar dañ la koolee beneen bot la ilaha illallah kon sa gi dese naa neex a ah, noo dem nag kon porté naa plainte contre x y z ak w damay kar police jàpp ko woo ma ñëw ma tapp taat yi moom kamp benn kottu bi après ma jël loolu nangu ma dagga ko sànni ko fële mu kàmmi sàcc baaxul pour loolu looy dag boobu nga ne xaaral ma gondu ji man man pour loolu li ma lay déggee eh? neen nga de ay dagg moom bi fekk boo daggee loolu nu muy dem moom waaw baax na demal en tout cas su ma na ñaan yàlla bañ ko jàpp su jàppee dinaa dagga tànk yi ma dagga loxo bi ma dagga nopp yi ma dag cuucu bi dum bay dara lepp luy lang wala lu genn ci yaram dinaa ko tagg comme min pullu nekk wujj taakam yalla dina non en man la pullu kenn dum mu sàcc di ci genné non soo jàng ma tag kala ko weer sa toon nga xam na xam na war na maaleykum salaam Aida Lawbe waaw Aida Ndao yow moom léegi raar bi de lu xew si teew bii dafa mujjee rafet ngay sañsele du kenn lu neex ah Poulo noonu la nag jigéen boppam la am waaw waaw ah, te am na li nga ci de parfum bii ngay keeñ Rihanna ba muy mujj ñëw Sénégal moom la doon keeñ <laughs> eh Aida Ndao bi ndekete léegi VIP gi de eh waay Aida Ndao bi ah lu ma ni màgg merci moom da ngaa ñàkk ki ñaar rek mais nag Poulo yow sa survêtement bi war nga de ñëwaat naa la mu bees. Eh, naa ki ma noppi laajuma la. yow ay law bi ku tax maa réew lan moo tax nga réew ma lay jaay fii nga nekk fii di ëppal di kii mi xelat. kóolal sa benn parfum keeñu man kam naa la pataana. tàngaay lañ nekk soo deful parfois koñ bi yëpp day keeñu yow kenn mënu nooy kam naa la jarul nga may kulli sa bët yi ngande yi jógal fi si da mel ni kaña moo dee koñ bi mu ngi keeñ nana luuba <laughs>